boo faree lettre ñu bind ci alxaaj bu laaj ko ko moom alxaaju Cheikh Omar Fouti moo ko moom boo faree lettre ñuy bind ci alxalifa nee na bu laajte ko ko moom sëñ Babacar Seck moom boo gisee lettre ñu bind ci borom daara ji ku ko forte maandu doo ko yóbbul kenn ko dul sëñ Mansour loolu nag doona la bis dafay <coughs> liir ci benn téere ñëw ñi sëñ Babacar dama waaro sëñ Babacar nag loolu waar mu ne ko damaa xamul nag naka la nitu yàlla di amee yenn martaba yi mu ne ko xanaa ci jawaahirul xam sa ko gis doom mu ne ko waaw mu ne ko martaba boobu ba ma ko rombeeg léegi doom mën na ñaar fukki at nekk na ci daara ji moom sëñ Mouhamadou Mansour am nit kuy ñëw di luxus xale yi daw di ko yéem keroog bi aal bi tàngee baaraam loon def nii xaalis bi wadd mu leen lii bañ ñu koy jàngal ay xale lañ amna na gu ñew bis mu woko niko diw yow ya say say amna sey bo xane bu yag ba legi ñu ngi taxaw pour naka la bi soté biig la la gis nga na ndaw si lankal buñ ci bëgg dugal bu ci dugg mu ne ko si mu ne ko ngi taxaw ci wetu place sangam ak diw nga diko ko wax ndaw ci mu ne ko waa yeesal ma daayira mu bu lu ko fekk nañ ko ñom re bëgg ko jox àdd xeb luñ ko wara jox ne ci ginnaw di xolante ak diko konté ki naan nañ ko yok ak ki na bi mu tijjee mu ni leen waaye yéen àddee ju ma war a jox rek di werante ndax da ko war a yokk wala da ko war a yokk gaa yi ti mu ne bu ma mënul woon ni ci biir di xam li ngeen di waxtaanee jarul ngeen may toog te loola ndono la sëriñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu ku dégg ay mayam léegi xam ne mën naa jur ku ne sëriñ Babacar nee na Firawna li muy bon bon bon bu ma ne woon yàlla tim ma ci mu yóbbu ko àjjana nee luy ñuul ci wé musuma ko fàttaliku ko fuma mayee yalla man señ Babacar nee ci allah subhanahu rabbikum khawlo balé ci la négocier pour alaaj Maalik nekk papa mu ne yàlla nitu yàlla bële de bu ma sañoon bu ci allah xara momuy jox ne fi mu tok ci tiawon fel way dox ci pont ndar buruy tank ba duk duk ji mi ngi koy sonal fi mu tok mom señ Babacar ñu ne ko dañu gis ne yow do jox sa talibé turu yalla mu ne ba doon turu yalla ci say talibé mo ëpp doole den jox turu yalla moo tax su imaam Sukayri dañ ne la xutbu zamaan boo xamee turam am ci li nga bëgg moo gën a gaaw nga jaar ko ci turu yàlla. nit ku nekk ñaari tur la am tur wi ñu la tuddee fii ci kaw suuf ak sa tur bi ci kaw asamaan bu ko nitu yàlla xamee dina xam kañ ngay judd kañ ngay dee ñaata fan ngay am ak loolu sa dexaaj maa ak loolu da teel a defal njabootam maam Ahmed si nga daan romb. benn jigéen romb na ko di waaxu mu ne ko yow looy yàkkamti xamuloon yow di nga am jëkkër di nga am ñaari doom kenn ki góor lay doon kenn ki jigéen nga xam ni kashfu ba dafa bari woon ba bu mu saan génn ci jàkk sëñ ba say Hadj Malick génn doo xamee kan moo ci maam Ahmed si ak kan moo ci sëñ Hadj Malick sëñ Babacar nag radiyallaahu taala anhu mës a weranteeg maam Ahmed ci ci yu mel noonu ba sëñ Babacar yaram yu tàng mu ne maam Ahmed si boo ma ko waxatee dog ci tariixa bi sëñ Hadj ñëw ni ko maam Ahmed si nii sëñ Hadj Malick dégg li Babacar wax may wax ak moom sëñ Babacar ni sëñ Hadj Malick ni ko ah man de maa ko jur waaye bu ma ko waxoon ma yeesal mu ñëw ni ko waaye yeesal ma ak sa bopp bu rëy nga xam ne ñoom seen i may mënuñoo jur kulul seen doom laa xarwa an yarsala walidu bi walidin waaye sëñ Mouhamed Mansour nag dafa am beneen beneen particularité bu ko ci yàlla defal wax naa sànq ni Souleymanu Amrin boo ko déggee musawiyin bi najdatin xaliluy diin sunniyun li Muhammadin dafa incarne loolu ci baatin ak ci zahir ba fu mu toog da koy feeñ bis gars yi dem nañ VDN booba jamono Sénégal mi ngi am délestage courant yi di coupé ñu egg ci deux voies yi ñu dugg taal lamp yi tàkkul mu ne ana Omar Diop mu ne ko maa ngi mu ne ko wool ma kilifa Senelec mu woo ko mu ne ko yow dag may fontoo nee woon naa la nag ma contrôlé kër gu ma jëm bu mu coupé nda tàkk léegi léegi mbaa ma fay la yow ci wàllu bopp. sëñ Babacar dañuy dañuy dañuy sëñ Cheikh dafa ne àddina minal xaajaati fi saxaarin li subhi fi saxaarin maanaam ni sëñ Babacar di faja aajo ni mu jegee fajar ak suba. loolu itam too woon na ci sëñ toppandoo woon na ci sëñ Babacar ba aajo sëñ Mansour ci sa am na ci yoo xam ne daawul sax euh, weer bi mu nekkee armée ibbi fa daara di fa jàngale di fa gàmmu maanaam li ñu li mu doon def ci waaw da koo def armée ba foofu mujj gi militaires yi di tardé bu ñu leen wooyee pour manœuvre ndekete yooyu ñu nga jëkk sëñ Mansour di jàng ay nuunu yaak ay xilaas saabu chef bi nag bismer ne day tëj sëñ Mansour 24 heures dala ko tëj kaso buur xam moom doomu xalifa bi la 15 jours lako ko la nii la koy tëj bi ñu Mansour lettre mu ne fi da rusna di téléphone seigne Babacar de ko talal loxom jang ñaan lamay ñaan dañ ca tek 5 minutes cheikh ba ñu affecté ko ci sas ne ko yow France yónnee na note légui bis naka tey amatoo fi droit man say bagage sax Dakar lay fek yow da nga dugg ci auto bi and ak auto bi daan la yebal say bagage fek la fa nga nek ju àndi la ko te wiraasa la xam ne ñoom dañu ko doon ci mag ñi yàlla defal leen ko te am na ci loo xam ne itam expérience la bu nit di dund ñun fekk nañ ko bis ci VDN këram boobu muy defar rawaan di way mu ne ma jox ma ma may rawaan maa ngi jóge Louga gasoil bu ma ñibbee laa dese maanaam benn dix mille te bu ma ko joxee rawaan wóor na ma ne ma jox ma ma may rawaan ma làmb sama poosu gauche ci la xaalis bi nekk ma bàyyi làmbaat poosu droite mun ma sa mun amone be ñaari be 5000 mi ngi jox ko te yoyu ma yu gëna ndaw ci yow nit macha allah nit jaxlé bëgg am dom ñew ci mom néna ma jurum señ Babacar daf ma koo jagleel jigéen ju mënta am dom ku dof pour mu faj la insaan ñu tak dof indi mu ni tekk ñu ne ko señ bi ki day doori mu ni ñu tekk mu ne ko nanga bàyyi dóore bi ah mu ne waaw mu ne ko toogal kooku foofu lay jaaree wér moom. sikkar ba turu yàlla jàpp la te li yéemoon sëñ bu ñu la indee ci dox yu mel noonu nga defee ni sikkar la wala turu yàlla ñun ak fekk naa jataay ñu indi benn nit mu ne ko yow dara jàpp la pion yi ngay naan moo la jàpp bàyyil drogue bi ngay naan jugal dem te effectivement waa ji daan drogue te buñ ko indee yanu gis muy daanu ñu defee ni werd la fekk du turu yàlla moom xam na ni lii dorog moo ko jàpp bis dem nañ jaar na yaram wi tàng wallahi keroog man la noot loo timis ñu mu xaal ni lal leen balaan wasifa ñu mu xool ci jataay ni eh jugal yow xool kenn ni ko jugal ñoom ñëpp bu mel xoolee kenn du ci taalibu Cheikh Ahmed Tidiane gaa yi ñoo génn ci ni waa saa lan moo tax paa bi yëkkatuñu ma ne comme xamuñu dara di waa ne man de neexu ba neexu waaye nag du ma ci maa ngi koy topp boobu ba léegi ma koo ma ne bu ma profitoo ci mbooloo mi mën naa ko gisaale am bis voyage am boobu ngeen dégg mu dem jaar ne jóge fa dem waalo jóge fa dem Maroc jóge fa dem Casamance soog dem Màkk mu ni Seydi Haaj Maalik moo ko feeñu keroog wallahi ci yetu oto bi laa taxaw mu ne ma Seydi Haaj Maalik moo ma feeñu ni ma naa dem jaar ne jubal fa dem waalo bu ma fa jógee dem Maroc jubale Casamance soog a aji Màkk nga xam ni eh, nekkoon na koo xam ni maanaam eh, feeñ na ba pare na butu boole te néew na nga daan ñëw wax ko aajo faju ko ci saasi xamoon macha allah nu ñu bis am naa sam benn mbokk ndeysaan bëgg am liggéey mu woolu bi ki koy bindal ni ko bindal ma meeru logo bi ni ko kii sama jarbaat la bu ko neexee na ko jël bu ko neexul na ko jël bu ko jëlul dina wo président dana ko jël ni ko nak ma ngi koy gërëm ci biir makka yam ma lo wa salam yonne ko ne ko seigne mohammed Mansour amna bis ñu nangu suukar suñ ko doon andil waji ne ko seigne bi sey suukar sa lañ jàpp mu téléphoné ala cheikh douane bi waji ne ko maa mu ne ko fekk ma fi awoon dama laa soxla waa ñëw mu ni ki nak moy kilif ak douane sama xarit la sama taalibe la sa gaay nak sama suko sala lañ mu ne ko seigne suko saagi ñew leg te bu ko woon ca Dakar ne ko suko si da waaye fokk mu indi la ba ci kër gi présenté la gaa yi ba pare nag nga soog a def mission bi mu la sant loolu nag mooy Suleymaanu Amrin yàlla daf koo mayoon euh, mu doon loolu ci sax say xam am bayra sëñ Abdou nee na bayra bi ci sëñ Mansour dina néewati nga gis nit ko yàlla defal. noonu itam la bëggee woon def lu baax boo ñëwee toog li nga li mu njëkk a xool ndax li nga sol lu baax la wala du lu baaxul. am na kilifa diina gu mag gum seet ni ko yow waroo dëkk ci néeg bu mel nii waroo sol yére yu mel nii si mu yéreem jox ko ko fa mu dëkk. su ko defee nag ñoom di fàttaliku seen jaar-jaar waaye la gën a neex nag ca la ci jàng mooy sëñ jikkoom ak jëfam dafa moso dafa àndoon xam-xam nag mu na ci woon loo xam ni ku ko bëgg a mësaan nax rek ci xam-xam nga koy nax maîtriser fànn yi nag ci manière bu jaaxal ku ne maanaam lépp looy wax ak moom da koy tari ci am na xeetu fànn yoo xam ni boo gisee kër Seydi Hadj Malick seen xam-xam yéeme maa ngi koy wax sànq am na funun yoo xam ne Seydi Hadj Malick bis nee na li ko metti mooy li yàlla ballal ci dënnam 360 xeeti xam-xam ti xamul naka la koy kan la koy mën a waxal ak kan la kan la ko mën a génnee waxtaan ceeg moom. mu ni dara gënu koo metti maanaam yàlla ballal nàccal ci dënnam 360 balluwaayu xam-xam te xamul nan la def ba génne balluwaayu xam-xam bi ak kan la koy waxanteel. jàng almul ixtilaaj almu zardaq almul baytara xeeti xam-xam yëpp njabootu Seex Seydi Hajji Maalik dañ ko daan jàngale su ko defee nag ñun ñaar ñëpp nag man ak jabel sunu sëriñ ñëw na nag bàyyi bu saaxo dafay gàmm ba mu yàgg mu gis nit ñeeg rëg-rëg ji ndekete boobu àllaaji ab doo ñëw Ah, su ko defee ñu dalal kilifa gi ba noppi ba nuyu